Euh, kañ ngeen di déggante. ma xool depuis euh, jeudi avant Farba di jouer Saly ñu ngi ko doon déggante. di wax si affaire màggal. lan ngay ñaan mais dañoo war a def ku rey ñu rey la parce que lii dafa metti te Aziz amul ak kenn rencontre fa dëgg yàlla jotewul ak kenn Aziz bu liggéeyiwul mu ngi këram demul dikkul wallaahi Azim loolu mën naa ko seedal ndax ku dee ak sa sa dernier oh, sama dernier kàddu mooy affaire màggal lan doon wax mu yàlla dafa dogal daf ma bëggal boppam daf ma bëggal boppam voilà loolu affaire màggal daal lan doon wax parce que ñun ñooy ànd màggal yi daal ñoo ko ànd màggal mais ma koy ñaanal rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. voilà mais Sénégal métti na tamit aussi Sénégal dafa métti dañu war a taxaw tiit ku nekk xool fi ngay taxaw fi ngay dem si ngay dëgg sa ndegam ku toog néegam saalam defoo dara demoo dikkoo ñu fekk la fa ne la xàttit rey rey sa rakk boo xamante ni yoonam nekkul si dara tamit dafa métti métti na trop yàlla baax na man tamit maa ngi leen koy jaale yéen ñëpp jërëjëf